cëslaay li di états généraux de l'éducation yi ñu amaloon 28 janvier atum 1981 euh, premier ministre ba woon Habib Thiam euh, ubbi woon ndaje ma euh, ñu war a nag dellusiwaat ci états généraux yooyu waaye lu ko jiitu xëy na danañu yéeg ba ca kaw xool cosaanal système éducatif bu Sénégal la cay gàllankoor ak la ñu gisoon ne xëy na ñoŋul ba waraloon ñu dem ci ay état généraux jeexalee nag ak tolluwaayu njàng mi tey ak jafe-jafe yu ci ñàkkul bu ko defee ñu jéem caa am ay saafara di waxtaan ak nag euh, un acteur de l'éducation ku xam lool njàng ak njàngale yëngu ci ba tey itam mu jàpp ni jàngalekat la école bu Sénégal yitteel ko professeur Mansour Aw ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci démb ak tey nga miin lool waxtaan wi waaye tey ni ma ko waxee njàng ak njàngale moo nu yitteel dalal ak jàmm. Euh, baax na jërëjëf euh, Fatou Thiam Ngom maa ngi lay remercier ci sa invitation bi di nuyu. suñu auditrices yi di nuyu itam suñu auditeurs yi ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew waaw thème bi nga indi dafa nekk thème bu am importance euh, ma di yokk di la gërëm ndaxte ñun fàtte woon nañ sax <laughs> ne vingt huit vingt huit janvier la woon hmm. <laughs> waaw xam nga dañuy toog bay fàtte yenn yi kon nag fàttaliku bi baax na ci lool kon nag jërëjëf mhm. jërëjëf yow itam ci disponibilité bi professeur Mansour Aw euh, ngay jàngalekat euh, nekk itam ku njàng meek njàngale mi yitteel lool ngay gëstukat itam ndax euh, historien nga bu ñu waxee historien nag xel dem ci histoire pour tàmbale waxtaan wi ci cosaanal système éducatif bu Sénégal mënees naa dooree xëy na ci bi école njëkkee ñëw ci euh, Sénégal école française muy euh, boori 1817 euh, tey boo ñu doon bëgg a indil cosaanu njàng ak njàngale ci Sénégal ndax mënees naa tàmbalee foofa. foofu la foofu la c'est-à-dire que ci Saint-Louis Doré 1817 la ñu tuddee école Anne-Marie l'école de Jeanne d'Arc mu nekkoon ci les pères ñoom ñoo fi njëkk ubbi njàngale hmm. tubaab te nag sax bañ ko ubbi itam indi ci ay méthodes yoo xam ne yi yu jëm kanam hmm. muy nit ñi ñu di faral di dimbalante ñam seen biir euh, ki ëpp xam-xam mën dimbali ki nga xam ne moo topp ci moom. Hmm. waaw mu di eh, genre école eh, classe multigrade boo xam ne bi xale yi ñiy jàng dañuy mutualiser seenam njàng moo doon lu xam ne lu am solo la waaye itam bañ fa jógee eh, Faidherbe bi mu xeexee ak waalo ci mille huit cent cinquante cinq lakk dëkk ba yépp ak lu ko wër xeex ñoom lakk euh, ñoom re fa la mujje euh, ba nga xam ne ñoo fa nekkoon te ay waalo waalo mujj ñibbisi ñi nekkoon itam euh, ci Fuuta di ay waalo walo ñibbisi ñi nekkoon Jolof ñibisi ñépp fajaay bi nag jël ci ñi nga xam ne ñoo doon euh, doomu buur ya ñetti famille yi ñii di ay tajjeek ñii ay logar ñii ay joos mu jël ci fu nekk xale indi ko ci paleem maanaam pour jàngal leen tubaab mm-hmm. pour ñoom mu mën leen dénk réew mi ñu nekk ay chef de canton mm-hmm. loolu moo indi woon lu ñu tuddee école des otages hmm. baatu otage boo ko déggee rek hmm. mu di baat bu doywaar waar hmm. ku ñu teg loxo ah, bo ku ñu ku ñu teg loxo koo xam ne kii mënuloo yëngatu mënuloo daw mënuloo def lenn ñu jàpp leen waaye moom am na lu mu loon pour former leen soppañi seen xel ak seen xalaat ak seen nekkin def leen daane ko ñu nekk ay tubaab jàngal leen kàllaama jàngal leen civilisation tubaab pour ñoom ku nekk mu dénk benn kanton pour ñoom ñu mën a yore réew mi loolu moo indi école des otages de Saint-Louis bi ñu demee ba ci biir gis ne turu otage dafa xaw a ñaaw ñu soppi otage di tudd ko école des fils de chef gën ko yaatal waaye loolu ba muy am fekk na daanaka ñoom moom la ñu réew mi lépp waa Siin waa Saalum fépp daal foo xam ne fii ñoom tag nañ fa loxo rek ñu jël fa nit indi leen former leen euh, def ci ñoom xam-xam ñu mën a làkku tubaab mën bind waaw sore seeni yére euh, dénk leen ku nekk nag fa nga jógee ñu dénk ko mu def ko sarkal mm-hmm. wala mu def ko canton mm-hmm. loolu mooy yaatal njàngu tubaab mm-hmm. ak jàngaju tubaab ci réew mi alors naka la lawee xëy na ba ku ne mën a jàng ndax booba euh, doomi chef yi wala ñiy jóge ci famille royale yi ñoo doon dem ci yooyu la école mooy école des fils de chef mi njëkkoon a nekk école des otage naka la yëfi doxee tey ba njàng mi njàngale mi lawee ci réew mi nii ah, mujj bi dafa am ay yeneen étape mille neuf cent quarante cinq xam nga dëkk bi dafa am aussi évolution politique euh, bu yaatu ndaxte ci biir euh, Sénégal les quatre communes am na ay yëngu-yëngu yu bëree bëri bëri ay évolution ba mille neuf cent quarante cinq ñu indi ay disposition pour réglementer enseignement primaire yaatal ko waaye loi Gaston Defferre mu di la loi cadre mm-hmm. nga xam ne moo indi ci réew mi euh, gouvernement local mm-hmm. ak assemblée local euh, moo gën a yaatal mbir yi mm-hmm. fekk itam syndicat yi euh, sosu nañu di xeex bi ñu amee indépendance nag mbir yi a yaatu waaw mm. mille neuf cent soixante bi tubaab yi dem mm. accord de coopération yi ñu signé mm. ak euh, gouvernement local bi def ci bari yoo xam ne yi dañ ko jublewu dañ ko jagale woon njàng bi ak njàngale mi maanaam mu université ak ci enseignement moyen secondaire ci collège yooyu ak enseignement élémentaire ba ñoom ñu bàyyi fi seeni nit mu di assistance technique hmm. mu ñuy jàngale ci école primaire yi inspection yi itam ñoom ñoo ko yore woon hmm. ministère yi ñoom ñoo ko yore woon enseignement supérieur université bi ñëw it ñoo fa nekkoon di jàngale. kon daal tubaab bi demoon nañu waaye seen njàngale moo fi desoon. waa demoon nañu sax du boo ne dem nañu ci nii rek waaye du ñëpp sax ñoo dem mm-hmm. <laughs> ndaxte ñoom ñi ngi fi woon ak seen assistance mm-hmm. technique mm-hmm. Euh, ñu wër présidence de la république wër ministère yi yëpp fu nekk seen nit ñoo fa nekk yore cabinet yi di décider di dem ak di dikk lii fii doon law li seen di politique nekk seen di loxo waaw loolu moo taxoon itam euh, jamono yooyu syndicat yi ak parti politique di xeex li ñuy tuddee néocolonialisme hmm. maanaam dañ ne tubaab dem nañu waaye demuñu. ñu ngi fi bu bees daal moo amoon. waa xeetu colonialisme armée française mi ngi fii politique yi ñi ngi fii li ñu tuddee France Afrique itam de Gaulle samp na ko ak Jacques Foccart hmm. ku leen neexul eh, ci président yi ñu daane la donc daal dem nañu waaye ñi ngi fii seen waaw mooy wéy hmm. waaw ci wàllu njàngale mi seen programme moom moo fi nekkoon hmm. seeni i assistance technique yi itam nit ñoo fi nekkoon di jàngale ñun farme itam ci njàngale mi noonu la école normale ñoo fa nekkoon instituteurs yi itam ñu ci bari ñoom ñoo ci nekkoon hmm. donc loolu moo fi nekkoon daal. ba mille neuf cent soixante yi mu gën gën a yaatu mooy daw daw daw daw daw daw mm-hmm. ba système éducatif bi daal noonu la mës a tëree mm-hmm. tëddoo mm-hmm. enseignant yi itam nag ci syndicat yi mas di xeex loolu mas di xeex loolu parti politique yi itam xeex loolu xanaa looloo ñu may fukki at gannaaw loola Sénégal jël dogalu xoolaat njàng meek njàngale meek euh, ca pandaw la muy am euh, atum 1970 waaw ndaxte loolu même 1970 di di bi sax bi ñuy def loi d'orientation sax dafa yéex. Mm-hmm. yéex na lool ah. ndaxte yow boo amee sa indépendance. fukki at. fukki at. Mm. Euh, waroo woon toog naan damay damay soog a jubbanti njàngale mi. Mm. di seet li nga xam ne moo di euh, cosaanu réew meek làkku réew meek. yi am ci réew mi jim ko dugal ci njàngale bi yow ba nga amee indépendance rek nga war a lijjanti mbiru njàngale mi tëral ko ci ñi nga xam ne moom la population bi di xaar ci njàng mi ndaxte école tubaab euh, population dañ ko mas a ragal ndaxte li ci génn dafa doy dafa daloon seen xel ci fenn sax. te itam lépp loo xam ne administration la rek population yi dañ ko mas di ragal. Mhm. surtout nag ay alkateeg lu tudd ci impo ak i domaine mhm. administration daal nit ñi dañ ko mas di ragal. Mhm. de sorte que ñàngu tubaab mënu fi woon a yaatu. mënu de sorte que ñoom Senghor bi mu jëlee réew mi. ak ñëwin Mamadou Dia Mamadou Dia doon jàngalekat bu ràññee ci gouvernement bi bari woon ay jàngalekat ñu waroon ca jamono yooyu rek toog lijjanti li nga xam ne mooy suñu système éducatif bi ba nit ñi war ko gën a mën a ñimeñ man ci dugg yaatal ko ba ñoom seen bopp vraiment mu nekk loo xam ne lii seen yëfu bopp la. loolu ñoom ñoo ngi ko def rek mille neuf cent soixante dix hmm. te nag boo liiree loi d'orientation bi man liggéey naa ci gis naa ne am na ay des-des hmm. liñ ci lijjanti mu nekk sénégalisation dafa dafa néew lool hmm. lool lool ba tey ndax ba tey li ba tey la fa nekkoon rek moom moo wuyoon ba mille cent quatre-vingt-dix la xaw a am ay yenn soppeeku yenn yi te fekk na boobu temps nag hmm. euh, jot na fekk na itam nag yenn syndicat yi gën nañu taxaw euh, xeex bi jolli na hmm. revendication yi jolli na sénégalisation bi itam euh, jëm na kanam loolu moo indi mille neuf cent yenn soppeeku yi hmm. balay 90 ñu taxaw ci 81 le 28 janvier ba Sénégal euh, ubbee li ñu naan états généraux de l'éducation euh, muy xëy na euh, may ñu xalaat ni am na itam yëf yu ñu doon jooyanti wala yu ñëpp d'accordoon ni faw ñu waxtaanee ko ba mën caa indi ay saafara états généraux yooya naka la demee woon. états généraux yi bi ko président Abdou Diouf doon woote kenn ci ñun syndicat yi. Hmm. maanaam sax ci SUDES particulièrement hmm. booba yaa ngi bokk SUDES. ah ñun ci la ñu nekkoon mu di le SUDES historique. Hmm. mu di SUDES bi ñu fondé en mille cent soixante quinze. mu dajale sendi mu dajale enseignants yi ëpp ci Sénégal. bokkul ak su tey bii nii de. bokkul bokkuñu dara sax. d'accord. <laughs> doo nga leen boole waaw tur wi ndaxte sud-est 1975 bi euh, doole bi mu amoon ak caractère historique bi mu amoon ñi fi nekk nii bokkuñu dara hmm. bokkuñu dara waaye 1981 dafa fekk euh, li li li fi jëlee président Senghor. Mm. grève yi am 1978 am na lu mu ci joué lu baree bari ndaxte enseignement yi enseignants yi mm. seen da da dañu 1975 euh, bi bi SUDES juddoo dajale tous les enseignants progressistes maanaam ñëpp ñi nga xamoon ne dem ñi ngi woon ci CES. Mm. ñëpp ñu nga xam ne woo ñu ngi ci mouvement étudiant yi nga xam ne dàq na leen université ñu test si ba génn nekk ay jàngalekat ñoom ñëpp ñu dajee créer syndicat bu am doole loolu moo indi doole Sud-Est 1975 Maguette Thiam jiite ko hmm. ci biir nag sax amoon na ay féwaloo ndaxte waa PAI ñi ngi ci waa waa LD ñi ngi ci waa Andi Jëf ñi ngi ci mu di syndicat boo xam bi parti politique dañ ci amoon taxawaay bu takku de sorte ku nekk daal yaa ngi xëccu waaw xeex bi nag 1978 ñu engagé ko mu dee xeex bu tar hmm. indi ay journée nationale d'action paralyser système éducatif bi indi ay grève yëngal réew mi hmm. Senghor xam ne léegi mbir demetul ni mu demee woon mu mu lool nag bi mu bi nag léegi président Abdou Diouf ñëw toog hmm. xam na ne mënul jàmbarloo ak jàngalekat yi ak syndicat bu mel ni syndicat SUDES. Hmm. nga xam ne ay kilifa yu ñu ko ŋànk ku ci nekk da nga jàng mën a ar am taxawaayu kilifa homme d'état bu mat sëkk hmm. nga xam ne soxla woo dara ci réew mi lu li réew mi ñu jubbanti boobu seen càkkutéef lan la woon. mais bari na ay revendication mooy changement système éducatif bi. Ah. li fi tubaab yi tëraloon ñu dindi ko. suñu moo doon moo ne école nationale démocratique et populaire ENDP. Hmm. école nationale démocratique et populaire. Hmm. ñeenti baat yooyu sigle yooyu yëpp dafa dafa am solo. Hmm. national moo di école bi li ñu tuddee les savoirs endogènes. maanaam xam-xam yi réew mi ci boppam ñu di ko jàngalee. maanaam du ñu rek jéggaane li nga xam ne mooy ay programme france ak bitim réew yi. mais dañu sénégaliser programme yi africaniser programme yi fekk nag ñun suñu bopp ku nekk fa nga nekk yaa ngi ci gëstu yaa ngi ci jàng yaa ngi ci bind am école syndicale di ci wax di ci yëngu mu di caractère national de l'école loolu baat boobu école nationale dafa am solo ndaxte nee naa la école bi dafa nekkoon école française au Sénégal école française au Sénégal nekk doon école nationale sénégalaise waaye école française au Sénégal ñu war ko def mu nekk nag école nationale sénégalaise mu di revendication bu njëkk bi démocratique maanaam euh, mënatuñ ko euh, gérer rek nguur gi nekk fi di ko def lu ko neex ku ko neex mu affecté direction yi di xañ syndicaliste yi xamuñu daal ci gestion démocratique poste proviseurs yi poste censeurs yi euh, poste euh, euh, maîtres yi am importance yi ñoom seeni nit lañ ko doon jox maanaam ñu nekk syndicat participation responsable fu la neex nga affecté nit bu la neexee moom bu dee syndicaliste bu am importance nga jële ko fii yóbbu ko feneen mm-hmm. amul compétition démocratique loolu ñu war a démocratiser gestion école bi mu nekk ci loxo jàngalekat yi ñuy ñuy réclamer des élections dans les commissions paritaires en hmm? jàngalekat yi di man di avancer normalement mu am ay commission ñu nekk enseignement élémentaire ñu nekk enseignement ci collège yi ñu nekk ci enseignement ci lycée yi ñuy man di toppatoo avancement yi nit ñi man di jëm kanam normalement ba nga mën a egg ci garab bi nga xam ne moo gën a kawe mu di école démocratique ba xarit yu nguur bi du toog rek lu ko neex mu def ko populaire moo di nit ñi population yi ak ku nekk fa nga man a nekk mën a accéder à l'école moo di accès à l'école accès au savoir école bi nekkal fi askan bi école bi ubbeeku ci société sénégalaise. ñu mën cee jot. ñu mën cee jot. waaw loolu moo de suñu revendication mhm. ci biir loolu itam mu am revendication bu am importance mu di enseignement moral ak enseignement religieux enseignement moral ak enseignement religieux enseignement moral école catholique ñu ngi ko doon def ñu ngi ko doon def mhm. enseignement religieux école catholique ñu ngi ko doon def mhm. waaye système public bi amu ci woon loolu moo tax bi ñu génnee ci états généraux mu am commission nationale de réforme de l'école CNRF hmm. mu liggéey pendant ñetti at ci ñetti at yi mu liggéey ci aspect yëpp yoo xam ne yi war nañ ci joyanti école sénégalaise hmm. déposé nag ay conclusion hmm. état généraux dafa nekk rek benn élément dafa indi orientation yi ne war nañu joyanti hmm. CNRF hmm. hmm. e e mhm. commission nationale de réforme de l'école et de la formation CNREF commission nationale de réforme de l'école et de la formation dugal na ci l'école bi ci yépp loo xam lii war nañ ko fi joyante mu indi ko ñetti atu yàlla nit ñi di gajante di daje. Hmm. di liggéey professeur université yi professeur lycée yi. Hmm. collège yi waaju am xam-xam syndicaliste yi. Hmm. ñëpp daje xam ne lii mooy jàngoro bi. lii mooy solution bi. ñu yemuñu foofu. ñu calculer ne lii mooy coût lu ci nekk dañ ne lii lii moo ko war a faj. temps moo ci war a dugg ci xaalis ci fii ci fii ci fii yëpp ñu calculer ko def ko mu di ay livres yu bëree bëri bëri yu yóbbul ko président Abdou Diouf kon nag bañ jógee ci loolu école sénégalaise wututula am dara lu muy jàmbat donc états généraux dafa am importance jàngalekat yi mu di ñun fi ñu nekkoon mu di sud dafa indi école nationale démocratique et populaire hmm. ñu tudde ko ñu ñu indi ko ci baat bu gàtt mu di école nouvelle hmm. ñu bañ ko bind ci benn livre tuddee ko école nouvelle hmm. école bu bees école bu ñu war a sanc boo xam ne bi bokkul dara ak école coloniale mi fi newoon nga xam ne ci moom moo doon wéy ñu fédère bi nekkee ba ci mille neuf cent quatre vingt et un hmm. bi ñuy tëdd ñuy tëdd état généraux hmm. loolu ñu loolu lañ doon jàmbat hmm. wala itam revaloriser fonction enseignante revalorisation de la fonction enseignante dafa am solo war a dugg ci indemnité d'enseignement ak indemnité de logement indemnité d'enseignement yi dafa am ay catégorie yu ko amoon yeneen catégorie amuñu ko ñu nañ ko yaatal jàngalekat yépp am indemnité d'enseignement hmm. indemnité d'enseignement yi ñu ko hmm. ñu naan da ngeen a bari kaar kaar hmm. ñu ne waaw loolu moo tax dañu koy def mu nekk une base minimale vingt cinq mille francs rek doy na mel ni ci ñëpp jot ñu indi ñu ne indemnité d'enseignement yitam dañ koy généraliser ñépp am ko mm-hmm. pour mën a motiver jàngalekat yi mm-hmm. jàngalekat yi xam ne am na lu tegu ci seen kaw mu di un sacerdoce mu di defar xale yi def xam-xam seen bopp mm-hmm. mu di liggéey bu métti xam ne dañ lay jële yow fii ci Ndakaaru nga di xale bu juree Géejawaay wala Pikine wala Parcelles Assainies yóbbu la fële Fongo Lemi yóbbu la fu sori. ci Kabrousse. yóbbu fu sori ci maatam foo xam ne xamuloo fa kenn. Hmm. nga war fa nekk mu di ay sacrifice. Hmm. ñu war am lu la jox mu di sa indemnité de logement. Hmm. mu war a nekk itam sa indemnité d'enseignement. mu sargal la mu nekk loo xam ne lii reconnaissance la. nga xam ne du xaalis bu bari waaye bu nekk loo xam ne lii mm. dana tax yow nga mën a am sa fierté mm. mën a am sa dignité mm-hmm. gën a sawar ci nga war a liggéey mm-hmm. doo fi nekk di taxawaalu doo fi nekk ci ay yëfu bukki mm. doo fi nekk di taxawaalu di tàll ay loxo di ñaan di tumranke nga am ci loo jàpp loo xam ne lii da nga koy suturlu mm-hmm. loolu moo de suñu revendication fondamentale ñu tam ñu indi li ñu tuddee école syndicale di former nag jàngalekat yi di former jàngalekat yi revendiquer yi tam jàngalekat yi ñu leen di former ci école yi école de formation des instituteurs école de formation des professeurs école normale supérieure bu am ay cursus de formation. Hmm. parce que pour nga mën am qualité jàngale. Mm-hmm. qualité njàng il faut que jàngalekat bi nga former ko. Mm-hmm. mu am xam-xamu mën a jàngale. Mm-hmm. il faut nga jàngal ko tam pédagogie. il faut nga jàngal ko psychopédagogie. mu xam environnement bi. il faut que mu motiver. mu mën a bu ñëwee taxaw ci ay fukki élèves fukki élèves sax euh, tuuti na sax moom. ay soixante élèves soixante dix élèves mhm. mu mën a jàngale correctement mhm. xam naka la mën a mhm. jàngale yooyu moo fi nekkoon ay revendication états généraux def ci ay jéego yu bëree bëri euh, commission nationale de réforme de l'éducation indi benn organigramme bu bees li ñu tudd cycle fondamental cycle fondamental mooy lëkkale enseignement élémentaire ak premier cycle des collèges. mu nekk benn. pour xale bi li muy jàng mën a gën a dëgër ci moom mu gën a mën a am maturité bu mu jógee nag mën a dugg ci enseignement secondaire am toutes les qualité réforme yooyu ñi ko defoon jël ñu ko noonu rekk dañu wër ci réew yi. dem ci ay réew Afrique du Nord dem ci réew tubaab yi hmm. dem ci pays de l'Est yi wër fu nekk ay syndicalistes lañ yoo xam ne yi yàggar yi muy suñu mag yoo xam ne yi war na leen di rendre hommage toujours ku mel ni Souleymane Ndiaye hmm. ku mel ni Souleymane Loum hmm. ku mel ni Sega Seck Fall ku mel ni Falay nowel ku mel ni Ibrahima Fall hmm. ñeneen ak ñeneen ñoom it Iba Der Thiam ci lañu bokk ñoom ñëpp ñu suñu mag lañu ñun ñoo ñu formé hmm. am lu ñu def ci ñun hmm. am taxawaay bu mat sëkk pour jubanti l'école sénégalaise donc ñun war nañ leen di rendre hommage pour bu ñu yëkkatee kaddu rek ca kaw parce que ñoom ñoo tax ñun ñu ñimeñ ñun ñoom ñoo ñu formé ñu ñu nekkoon suñu mag nekk ci kanam ñu leen di surveiller ñoom it ñu ni surveiller ñu mm-hmm. waxanteeg ñoom dëgg mm-hmm. ñu leen di wax dëgg ñu ni wax dëgg mm-hmm. duñu teet ñu ànd ak ñoom ku ci juum tër tërëf ñu na laa grand lii wala grand la day yu tox bu rus ba mën a def yenn yi donc loolu ma fi nekkoon démb bi ñu jógee quatre-vingt-un CNRF liggéey génne ay conclusion ñu war ci taxaw mën ko appliquer waaye nag appliquer wuñ ko mm. ah appelé wuñ ko li tukkee ci états généro yooyu. ah li ci <laughs> gouvernement bi dafa jël li nga xam ne moo ko arrangé. waaw ah, kon loolu yàgg na fi. ah moo ko <laughs> moom <laughs> loolu kenn yàgg na fi nag itam ah. jël li ko arrangé. la des mu teg fee. indi li ñu tuddee classe multigrade. Hmm. fi mu war a tabaxee classe. yu doy mm-hmm. mu ne déedéet damay lëkkale ñaari classe mm-hmm. fekk nag sax yooyu proposé nañ ko woon mm-hmm. ci état généraux waaye dafa fekkoon ne dañ koy waxoon dans des circonstances exceptionnelles mu di ba beneen pexe amul waaw bu dee ba tax amul waaye bu loo ko def mu nekk si politique nga war a recruter ay enseignants yu doy recruter wa ay enseignants yu doy di ko di lëkkale yokku ñoom charge de travail bi hmm. te formé woo leen ci loolu amuloo indemnité boo leen jox hmm. yow yaa ngi dévaloriser liggéey bi hmm. njàng mi di yàqu njàng mi di yàqu nga indi ay ay lëcc-lëcc ci njàngale bi waaw loole yëpp ci jamonoy Abdou la ah loolu ah, yëpp ci jamonoy Abdou la gannaaw euh, euh, états généraux yi gannaaw états généraux yi loolu ci jamonoy Abdou Diouf la mu di les classes multigrandes hmm. ak les classes intermittentes hmm. xam ne ñii dañuy jàng ci suba yi ñii jàng ngoon. dem ñibbi ñee ñëw jàng loolu foo ko mën a teg hmm. alors que dañ ne yow da nga war a am foo continue war a yaatal war a créer ay infrastructure yu doy war a recruter ay jàngalekat yu doy war leen a former war it matériel didactique yu doy sëkk war a jàngale li ñu tuddee savoir endogène mu di xam-xamu réew mi mm-hmm. ak xam-xamu xaral yi nekk ci àddina bi mën ko dugg sa njàngale mm-hmm. yéen defutuloo loolu indi ay classe multigrade di lëkkale indi classe intermittente yi di jàng ci suba ñii jàng ci ngoon mais loolu moo indi moo gën a yàq ñàngale mi mm-hmm. ñu itam ñu taxaw nag xeex Abdou Diouf day xaar moom de moomu indil ñu ñu dañu indi école état généraux moomu indi ñu école de la banque mondiale. Hmm. ak di fo fonds monétaire international. ndaxte dafa fekk fo monétaire international ak banque mondiale indi ci réew mi programme d' ajustement structurel. Hmm. maanaam xoj gouvernement bi. Hmm. na ko léegi secteur santé ak éducation ce ne sont pas des secteurs productifs mm. mais yu nekk ay secteurs yu jël xaalis bu bari. maanaam jëluñu xaalis dañ leen di néewal doole. Mm. nekk duñu secteur privé. wàññi masse salariale defar ay départ volontaire ci fonction publique. Mm. réduire son nombre de fonctionnaires jàpp président euh, euh, euh, Abdou Euh, indil ko ajustement ah, structurel xeex yi nag jolli syndicat yëpp taxaw nag di xeex moom xeex ak moom xeex ak moom mënut am jàmm ci réew mi ba ni mu fi jógee mm-hmm. waaw loolu xëy na sax moom du woon volonté parce que moom bi ñuy convoqué état généraux il était parti avec de bonnes intentions waaye il s'est laissé dicter la volonté du Fonds monétaire international ak de la Banque mondiale bu àndoon ak ni mu ak jàngalekat yi hmm. responsabiliser leen dans les destinées du pays mais dëkk bi doon na mën a ndaxte dëkk mënul dox tant que amul un corps social boo xam ne moo porter le développement économique mm-hmm. social et culturel mm-hmm. France bii nga gis ni li ko jëmee kanam moo di le corps enseignant mm-hmm. le corps enseignant troisième république li ko jëmee kanam en France toutes les réformes ont été faites en faveur des enseignants ñu taxaw responsabiliser leen ñu liggéey dem dans tous les coins et recoins de la France mmh. avec un patriotique fu dara amul ñu taxaw fa jàngale fa redresser le niveau culturel France mën a tegu ci yoon dem mais loolu Abdou Diouf président Abdou Diouf avec beaucoup de respect mm-hmm. président Abdou Diouf parce que c'est un homme d'État mmh. a été formé à bonne école. Mm. c'est un grand patriote. Hmm. ku bëggoon réew mi la waaye toog bañ nasaxal ko noonu ku mel ni Habib Thiam de son premier ministre moom itam mu nekk un un grand homme d'État hmm. nit ñoo xam ne ñii ils beaucoup à l'État xam ne ils sont mûs par un sentiment patriotique waroon nañu mën a ak population bi ak li nga xam ne moo doon l'avant-garde de ce pays là mu di le mouvement enseignant ak le mouvement syndical mm-hmm. tabax réew mi defuñu ko. ñu déglu FMI ak ñu déglu FMI ak Banque mondiale moo taxit en deux mille tous les syndicats mm-hmm. sauf les syndicats de la participation responsable mmh. ont pour le départ d'Abdou mm-hmm. looloo ko daaneel. ah loolu moo ko daanee. grève sur grève. grève sur grève. syndicat enseignant les centrales syndicales ñëpp ñu fàttaliku grève wu UNSAS. grève Sutelec grève ay CSA. ñëpp di fàttali grève ay Puritain Fall ñëpp et cetera sax ay Madia Diop amorcé ay alliance avec des syndicats comme la comme comme CSA. Mm-hmm. ndax dañu toog ba syndicalistes yi nga xam sax ñu doon de participation responsable toog ba gusatuñu seen bopp ci politique mm-hmm. président Abdou Diouf a politique banque mondiale. ñoom itam ñu dugg ci grève. ku mel ni Madia Diop nga xam ne il a cheminé avec le pouvoir dem na ba mettre un terme à la participation responsable. Mm-hmm. désaffilier carrément sax CNTS ci les structures du parti socialiste am courage am ak dignitéem liggéey ànd ak ñun ànd ak le syndicats sur le front de la revendication hmm. moom loolu moo ko sawee hmm. te nag loolu li ko may moo moom dafa jaar ci ay loxo yo wóor bu ay loxo waa PRA hmm. Sénégal ay loxo ñoom Ablaye Ly ay loxo ñoom Amadou Mokhtar Mbow hmm. ay loxo ñoom Assane Seck qui étaient des patriotes xam ne dañu taxawoon fii di xeex ngir mën a lijjanti indépendance nationale de réew mi mais boo amul fibre patriotique xam nga dangay toog rek ci nguur nguur ah mais loolu mën a sotti hmm. loolu moo dal président Abdou Diouf ne méritait pas ça hmm. ndaxte ko baax la am na xam-xam il a été formé au niveau le plus élevé dans l'administration coloniale en France d'outre-mer ba fay nekk sax moom mi ngi réclamer son appartenance dem de gauche def ay mémoire yi mu def moom dans l'administration coloniale di réclamer son patriotisme ak yooyu yëpp appartenance même à la gauche révolutionnaire dans ce pays-là kon boo ñëwee war nga am taxawaay boo xam ne bii mm. dafa nekk taxawaay bu mottali li nga xam ne moom le mouvement patriotique dans ce ak banque mondiale téye ba xëy na ñu xam ne lii mooy njariñu réew mi wala li ëpp ci réew mi ci lii la ñu jublu jëm ñoom ñu aw feneen mais budget hmm. budget national d'accord xaalis moo koy tàllal ñoo lay abal ñoom ñoo lay abal hmm. il ne la fii nga koy def nii ngay doxale bu bu bu ma la joxee lii nii nga koy fii nga koy dugal. te bala ma lay jox li dangay ngay def lii samay technicien ñooy ñëw samay expert ñooy ñëw samay consultant mooy ñëw. Mhm. nga engagé leen ñu liggéeyal la pendant un an deux ans defalee say conclusion ci nga war na fay ci li ma la war a jox ñu war la guider ci li jox nga def ko ci ñoom li ñu wax na fa nga ko war a def. kon ñoom genn wàll gi yëpp te ñoom lay dellu di. puis nag intérêt yi ci tegul te yow boo te te boo fayul. Hmm. ñu am lu la tegal rééchelonné la yow boo toogee ba mënatu la fay nga ñëw taxaw nag ne damay ñaan ñu rééchelonné ma. Hmm. maanaam li ma leen ameel. Hmm. ngeen seetaateel ma ko. nang man laa koy fayee nu gën a woyofee. wa eh, déedéet man ko du woyof moom. waa ndax day am yeneen i mbir yu jay tegu ay intérêt waaw waaye dañ la koy pàcc pàccal daal. moo di intérêt sur la dette yow nga nekk fi di fay dette di dette di dette di dette di dette ba kañ. Hmm. loolu moo tax suñu xarit yi ñu nekk dans le mouvement social. Hmm. ñu ne ñun fay nañ suñu dette yàgg na. Hmm. li ñu abal kay ñun fay nañ ko bu yàgg yàgg yàgg ay intérêt la ñuy fay. intérêt de la dette moo fi des. te nag tant que yaa ngi fay intérêt de la dette mais du ci génn. waaw ndax da ngay lebaat rek. da ngay lebaat rek dugal di lebaat <laughs> waaw loolu. mooy c'est cercle vicieux. Ah, ah ñun ñun pays yi waruñu am suñu jom suñu ah. ful ak fayda ñëw taxaw. Mm-hmm. barki dem rek ñoo ñu teggiloo subvention sur l'énergie. Ah, eh, eh, moo waral carburant bi yokk. Eh, bala ngaa def dara ñoom ñaan la defal wala bul def. Mm-hmm. waaw yow dëkk bu toogee ba amatul sañ-sañam. Mm-hmm. kooku fan la jëm. moomatoo sa bopp de. am na nag lu amoon ci taawu président Ablaye Wade. Hmm. moom amoon na fulla ak fayda. Hmm. ba indi fii politique d' assistance boo xam ne bii eh, sans décaissement. Hmm. pay leen seen xaalis. je n'ai besoin que de vos conseils. xaalis bi moo ko soxlaa mën naa ko uti sur le plan international. moo leen politique boo xam politique bu juste ba mayoon na ko moom li fi nekkoon ci stock de revendication yu bari ci taw président Abdou Diouf mm-hmm. moom président Abdoulaye Wade réglé ko mm-hmm. recruter xale yi waroon a génn école normale mm-hmm. nga xam ne génn nañu amuñu liggéey mu mu jël leen volontaire ak vacataire yi fi nekkoon ci taaw président Abdou Diouf mu valoriser leen ñoom ay cinquante mille faral leen doon fay. Hmm. amuñu filet social. tumuranke ñii génn école normale recruté wu leen du leen jël ñu toog ay jeunes ay ay promotion taxaw président Ablaye Wade recruté leen. Hmm. indi un bol d'air dans le système éducatif. am ci lu mu ci lijjanti. Hmm. nu mu def ak conclusion kii ya états généraux ya ah la laalu ci. laalu ko. waaw. Hmm. école nationale démocratique populaire moom laalu ci moom. te yëkkatiwaatu leen ko itam yéen. ah déet <laughs> moom li ko may chance. Hmm. président Abdoulaye Wade. 1999 dafa amoon lu ñu tuddee dafa am grande rencontre moo indi le PDS. Hmm. programme de l' éducation et de la formation et de la formation. mu nekk un programme de mise à niveau les bailleurs dañu indi xaalis bu bari dans le secteur de l'éducation enseignement élémentaire enseignement moyen enseignement secondaire mm-hmm. indi xaalis bu bari rectifier yu bari bari bari bari bari loolu moo sauvé itam le président Ablaye Wade xaw stabiliser le front syndical mm-hmm. waaw d'accord waaye bi fu jógee itam bon président Macky mi toog. Hmm. bon il a hérité de de de problèmes. Hmm. ndaxte Wade li mu waroon a réglé. réglé wul yëpp. Hmm. bàyyi na fi ay problème moom it. bàyyi na fi ay problème te nag itam loolu man bind naa ko sama livre bi ma bi ma bi ma def. mu di ne. suñu camarade syndicaliste yi nga xam ne à moment moments donné nguur gi daf leen di jël dugalee seen biir dañuy toog mu bi ñu wëlbatiku contre le mouvement syndical li ñu liggéey ci syndicat yi jubale ko ci syndicat yi war a nekk un répondant war a apaiser yi war a euh, pousser bi a appliquer yi nga xam ne mooy revendication fondamentale bi mhm. jàngalekat yi mhm. dañ ko deful mhm. de sorte que rek ñoom ils deviennent des otages du système système bi tam di ko di leen layee ñoom nag ñu toog di layal système bi di ko politigal revendication jàngalekat yi nekk fi rek di di di traîner ñoom xeex di xeex di xeex rek waaye normalement tey jii président <laughs> Macky Sall. Hmm. bon wóoruloo am benn problème. Hmm. wóoruloo am benn problème. ñu ne la depuis président Abdou hmm. avec les états généraux. avec la commission nationale de réforme de l'éducation et de la formation. ak PDEF. programme décennal de l'éducation et de la formation. yi waroon na régler le problème de l'éducation et de la formation président Macky Sall mu ñëwee moom dafa fekk li ñu la paquet mhm. paquet moo di programme d'appui à la qualité et à l'équité mhm. moom programme d'appui à la qualité et à l'équité maanaam euh, jombax tollu affaire yi. Mm. moom moom la fekkee. Mm. nga xam ne tey yii moom dafa war a nekk jamono ba xam ni satisfaction totale. Mm. jàngalekat yi tey jii nii waruñu woon am benn problème. ndaxte bu dee ay ay tolof tolof rek tolof tolof yi xam nañ leen identifier nañ leen. Mm-hmm. xaalis bu fi dugg ci réew mi. depuis états généraux ba jaar ci PDF bari na. man amoon naa chiffre yëpp yëpp yu ci bare bare bare mi ngi sama livre hmm. ci bare bare bare mi ngi sama livre xëy na yi ma amoon rek mooy mooy chiffre yi nekk ci paquet hmm. waaye yëpp chiffre yëpp yi fi am yëpp hmm. yi fi jaar yëpp yu tous ces chiffres là donc tool lañ foo xam ne fii tey jii nii président Macky Sall warul am problème avec les enseignants te il n'a que des problèmes avec les enseignants. waaw léegi tey boo doon identifier problème mu njàng meek njàngale mi ci Sénégal lan la. mais mais mais parce que ba tey. Hmm. mais mais njàmbat yii ba léegi yaa ngi yaa ngi dégg ay problème avancement des enseignants mais loolu kenn mënu ko mais kenn mënu ko xam avancement ay problème mu stock boo xam ne da ngay a avancer fonction publique. bu bloqué avancement yi parce que bëgguñu jox ni ñu seen xaalis. Mm-hmm. dañu toog denc xaalis denc ko denc ko denc ba mu bari. Mm-hmm. bu ñu la jox ñu tëq ci genn genn wàll gi presque. Mm-hmm. yow boo jotee li la war a fay. da da mu mu nekk lu néew. mooy li ñuy wax rappel. Eh, mooy rappel. ñii war di réclamer ay problème indemnité ci ay examen hmm. ay per indemnité ay déplacement hmm. ay mbiru caaxaan yoo xam ne yi ñun bañ ko xeexee hmm. ca taw Abdou Diouf Abdou Diouf dafa gaaw précipité wu régler problème saafara ko tey ñu di ko coowaat ba tey tey ñu ko coowaat ba léegi nii mais loolu dafa rusulu deltu ginnaaw la de loolu deltu ginnaaw la dañu tax ma ci sàll ak loo ko man di waxal xam ne ila a il est animé par une bonne volonté. Hmm. il est par une bonne volonté. kon luy problème bi na taxaw saafara ko. Hmm. na taxaw saafara problème yooyu problème yu ndaw ndawaan yooyu. Hmm. ni ñi di revendiquer di am insatisfaction di jàmbat di jàmbat di jàmbat di jàmbat di jàmbat. dana tax intention bu mën di am ak lu mën di liggéey kenn du ko gis. Mhm. mais qualité bi qualité njàng mi ak euh, nit ñi yem ci jotandoo ci yooyu yëpp gis nga ne amul gàllankoor. ah qualité bi nag man léegi man mënatu ko mënatuma ko at atte ndaxte comme nekkatuma ci système bi waaye li li ma li ma wóor moo di ne man mii. Mhm. Euh, jàngale naa def naa ñaar fukki at ak juróom di former ay professeur mhm. ñu war di dem di jàngale. ñaar fukki at ak juróom maa ngi formé ay professeurs yu wan dem di jàngale ci classe yi mm. li ma mën a seede moo dina ne ñi ma mujj a jàngal mm. ak ña ma njëkk a jàngal mm-hmm. niveau yu bokkuñu mm. ñi ma mujj a jàngal moom daanaka da leen di xeeb xeebaay boo xam ne bii duñu sax am niveau bac bu wóor te pourtant université la ñu mhm. la mën a làkk tubaab bu xale yi wóor la duñ la mën a loo xam ne lii wóor la. Mhm. seeni at xawa a daanaka maase ak ñi ñuy jàngalee. Mhm. am nag ay bëgg-bëgg yoo xam ne yi na. war di nekk ci eh, ay li ñuy tuddee la mercenariat di ñu consacrer à l'essentiel. mooy nekk ci loolu dafa am lu mu lu mu wuyu ci qualité enseignement bi donc yooyu war nañ di ko lijjanti qualité enseignement mi ngi dépendre ci l'enseignant avant tout mu nekk un enseignant bien formé sur le plan académique mu am xam-xam bu wóor sëkk bu mat sëkk mm-hmm. mat sëkk nag bu fa jugee am pédagogie xam ni mu war a jàngalee nan la bu xamee ni mu war a jàngalee nan la nga mel ko dans un environnement boo xam ne bii bu soxla matériel didactique mën na ko am mën a am satisfaction mën a jàngalee correctement xale yi ñoom itam mën am ubbeeku loolu bu amul ne qualité moom enseignement ma man de dégguma benn évaluation di ci ci ci paquet yi. waaw hmm. ah, paquet de deux mille trente cinq la yem xëy na bu ñu ca yeggee daan ko ah, évaluer. mais mais deux mille trente cinq euh, euh, <laughs> sori na. sori na moom. man en deux mille euh, deux mille seize. Hmm. dama doon def benn mise à jour sama livre bi. Hmm. ma refaire le tour des syndicats. pour waxtaan ak tous les secrétaires généraux des syndicats mm-hmm. waaye ni ñu ma teertoo mm-hmm. <laughs> mais mais j'ai eu beaucoup de déception mm-hmm. ah wax naa ne ko itam man dama leen wax li ma xalaat de du ma dem di jàmbat dama wax li ma xalaat bi ma leen interroger ñoom sen bopp pour xam est-ce que ñoom am nañu proposition alternative par rapport à la situation actuelle de l'école sénégalaise mais amul li ñuy reetaan naan kooku c'est la part du gouvernement ñu dañuy war ñu def ay proposition ma ne mais loolu ñoom ñoo ci war a xalaat. yéen war nga am capacité d'anticipation. Mhm. mu leen nekk nii rek di poser ay revendications. Mhm. vous avez un rôle de construction nationale. Mhm. te waxoon naa leen ko de. ay ati ati at ci gannaaw ma leen war ngeen créer ay mutuelle de santé mutuelle retraite complémentaire hmm. war ngeen am ay activités yoo xam ne yii régler les problèmes de logement des enseignants hmm. ngeen mobiliser toutes les ressources dans le milieu enseignant yokk seen prise en charge en tant que enseignant hmm. li nga xam ne gouvernement bi mënu ko yéen nga defal ko seen bopp ah. ma leen man l'expérience que j'ai vécue en France avec toutes les mutuelles de santé toutes les mutuelles retraite complémentaire toutes les mutuelles yore ay assurance ay central d'achat man mais loolu tax na ba enseignants yi foofu ñu ngi revendiquer sur le plan syndical mhm. ñu ngi mëne syndical mhm. waaye li am ci satisfaction amatuñu yenn problème yi daal amatuñu yenn problème yi mhm. waaye fii yow yaa ngi toog di xaar ngóor ki def bu deful yow amulo dara loo xam ne li mën nga ci jàpp hmm. walla balaa nga am solution rek yaa ngi def ay yaa yaa ngi dem di def ay ay ay mercenariat dans le privé hmm. loo xam ne lii ñun ba ñu nekk ay syndicat actif kenn ñi mu ñu ko di ko def de ci jàngalekat yi hmm. kenn ñi mu ñu ko di ko def jóge fii dem fee di di di jàngale dans le privé kenn ñi mu ñu di ko def suñ camarades yi. Hmm. boo ko defee dañ lay lay rapport def la résolution. Hmm. Hmm. léegi dañuy sacrifier public bi dem ci privé bi. Euh, euh, euh, loolu moo ndaxte bëgg nañu am oto bëgg nañu am lii bëgg nañu am la et cetera et cetera ko am ci li nga xam ne moom moom lañ leen di gagné. ah amuñu esprit de sacrifice bu leen mën a permettre yitam nga muñ yenn ñu def yenn yi loolu ay problème ci réew mi li ñu war a wax la mhm. nee naa leen yéen vous êtes une force mhm. sociale mhm. vous êtes une force culturelle vous êtes une force politique vous êtes une force syndicale tout ça sont des leviers yéen tey jii sur le plan politique di ngeen amule sax taxawaay bi ngeen war a am sur le plan politique. Mm-hmm. da di nekk de petites section à l'intérieur des partis politiques. Mm-hmm. te amul sax taxawaay bi nga xam ne moom ngeen war. Mm-hmm. leadership enseignant bi ngeen war a am di éclairer. véritablement les directions les états généraux les directions des partis politiques amul leen ko sax aujourd'hui vous êtes derrière dans les partis politiques. Mm. ak ni ñu amee solo ci réew yaakaar. boo boo boo langaamoo ci benn parti politique bu ëllëgee nga mën fi am lii wala am fi laa. Hmm. par rapport à l'avenir du pays xaral réew dëkk bi l'avenir du système éducatif toutes les valeurs fondatrices de ce pays et des idéologies fait le monde mais ñëpp taxawuñu ci loolu. Hmm. te nag loolu moo war a defar réew. waaw leer na <laughs> jërëjëf professeur Mansour Aw xam naa ne foofu la ñuy waxtaan wi amoon nañu mbégte lool dalal la ci Demb ak Tay encore une fois waxtaanee njàng meek njàngale mi cosaan leeg jafe-jafe yi ci nekk boobu ba léegi wax dëgg yàlla tey gindeeku nañu ci lu baree bari di rafetluwaat xam-xam bi di la ñaanal yàlla bàyyi la fi lool te may la wér gën a leeral aussi xalaat yi jërëjëf jërëjëf jërëjëf professeur Mansour Aw la ñu doon dalal muy jàngalekat euh, nekk itam euh, historien euh, ci démb ak tey ñu doon nag lay taayale waxtaan wi états généraux de l'éducation et de la formation yi amoon 28 janvier atum 1981 ci jamonoy président Abdou Diouf yaakaar naa ni tey ñu bari gindeeku nañu ci njàng meek njàngale mi fi mu jaar ba yegg si fii ak jafe-jafe ci nekk aussi lu ko waral di gërëm jaawo jàllo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig leen daje beneen dimanche incha allah ak keneen yeneen émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel ñu yendoog jàmm